ayca ñoom final yeeg am avril ndeysaan final fii ci Ndiaganiao le 31 janvier 2024 diggante Paul Menthe ak Simbo a Diakhao ndeysaan di bëgg képp kuy bëgg Ndindy Fall TV Paul Menthe dem na ci kawam ndeysaan waa fans club Ndindy Fall TV ñoom foofu leen ziar naa leen ndeysaan képp ku may rek maa ngi lay bëggee Ahmed Sango borom États-Unis ba sawal ziar naa la doom de Omar Ngala doom de Aliou Gaynako ndeysaan a Ndong borom sa wàll ziar naa la ma ne Zal Ndiaye ca Espagne waaw ma ne kosam gay naa ko ziar naa la Mohamed Sarr borom Fadial si bokk ma a na benn avertissement ndeysaan di bëggee docteur Diouro Sarr borom Palmarin borom Mbao ak Grand Yoff docteur Khoulio Diatta Souleymane Diatta Medoune Diouf ma ne boo nee eh docteur Serigne Saliou Faye waaw waaw Paul Mante takk na ko Paul mi dama bëgg a teel a jeexal combat bi ndeysaan di bëgg Adama Martin Sarr borom Djilass ziar naa la Zambay ñax alliance Rebeuss ndeysaan di bëgg Abdou Sañ bi nga ju Mamadou Souley Sañ Mamadou Ndiaye ziar naa la waaw waaw Elimane Mansour Kote ne wa ndeysaan di bëgg waa LG Mbaw ak waa Camp Leclerc ñoom chef GV chef Nikel Khadim Biram Sow ndeysaan chef Latir Sène GV Nikel ndeysaan Diène Salan Sène as Papa Doudou Sarr ne ziar naa la lu xew ndeysaan am na avertissement eh Medoune Diouf borom Touba borom Gandiaye ziar naa la ndeysaan Pape Latir bo ordinateur ziar naa la mama bo ordi bëgg naa la ma ne Omar Ndiaye borom Kaolack bëgg yusufa do mu doomu séeréer ziar naa la Mamadou Diouf borom fatik Fatick jaay tam sir jogo ndong ma piero Pierrot si boko ma am nga benen avertissement muy deux si boko ma disqualifier pour man te jël la